fitna nga xam ne ñu ngi wax ci aw sëriñ bi Cheikh Mouhamadou Mountakha moo ko sant moo ko sampoon sëriñ Mountakha Mbacké moom moo jiite ko li ko taxoon a jóg mooy ànd ak daara ji di ko gunge ci ay xalaat di ko gunge ci lépp loo xam ne day tax njàng ma ak yar ba dox mu bokk ci liggéeyam nag bu ñu tolloo fii ci at mi mboolem ña nga xam ne ñoo fa tari alquran ñoom la ñu seet ba jàpp ne wattu nañu alquran ñu dikk fii fi Touba ci kër euh, Cheikh Mouhamadou Mountakha ci Darou Minane laj na bi organiser jataayu tari ren ji ñi nga xam ne ñoo fa bàyyi ko toll nañu ci fanweer ak ñaar loolu di ak yokkute bu am solo ndax dafa mel ne ba ñu tàmbalee ñëw fii di tari nekkoon nañ juróomi nit ak juróom-ñaari nit fukki nit ak nangam ñaar fukki nit ak nangam ba daaw muy ñaar fukki nit ak juróom-ñett ñu dikk si fii tari si fi macha allah tari bu rafet muy lim boo xam ne mësee fee yegg waaye ren ji alhamdulilah mu doxaat yeneen tànk gën a jëm kanam lim bi àgg ci fanweer. ak ñaar yoo xam ne ñoom ñëpp alhamdulilahi biñ leen seetoo tari nañ alquran tari bu teey tari bu rafet tari bu ànd ak tajwid tari boo xam ne ñi leen téel ñoom ñëpp saxal nañ ne gone yi day wat nañ alquran gone yi day liggéey nañ ci ñoom liggéey bu wér euh, laj na bi nag ni muy organiser tari bi niñ ko doon waxee fanweeri donga lañu ak ñaar laj na bi day tànn fanweeri jàngalekati alxuraan ak ñaar yoo xam ne du ñu bokk benn barab bu ñu jógee barab yu baree bare la ñuy jógee ñooñu benn dongo bu nekk ñeenti sëriñ daara ñoo lay téye benn dongo bu nekk ñeent a koy téye ñeenti ñooñu kenn ku nekk da koy téye fukki xisib ak juróom bàyyi ko jox ko moroomam kooka teel ko fukki xisib juróom kooka jox moroomam mu tariwaat fukki xisib ak juróom kooka jox moroomam ba nga xam ni su kaamil bi yeggee fekk na ñeenti sëriñ daara yu xam alxuraan te mën a jàngale ñoo ko topp ba saxal ci moom ak mokkal wala ñàkk a mokkal e, tari boobu it doonut loo xam ne dañ koy bàyyi kii téye la rek mu dem ci am xelam déedéet laj na bi dafa liggéey fiche fiche boo xam ne moom mii téel gone gi fukki is juróom lépp lu ci seetlu ci ab gat am na fu koy noté lu ci seetlu ci yàq yàq ñu def ko ñaari façon yàq yàq aw xaraf am na fum koy noté yàq maska am na fu koy noté ab runge am na fu mu koy noté boole ci noté saar wa runge ba nekk at aaya ji runge ga nekk xale bu fekkee dafa runge ñu topp ko topp ko topp ko te mënta génn ci runge ba kooku ab gàtt la kon fiche bi noonu dañ ko rëdde muy màndargaal gàtt yàq xaraf yàq maska runge saaru runge wa aayay runge ja runge ba noonu lañ ko toppee ci fukki xisib juróom yu nekk nga xam ni kii téel xale bi su noppee moom xamut xale bi lan la ñuy àtte ci moom ki téel xale bi su noppee moom fukki xisba juróom yi mu ko téel la xam xamul la ca des këyit yi di ñeenti këyit yooyu nga xam ne moom lañuy toppee gone gi su noppee dañ koy indi ci commission bi laj na bi na bi nag mooy toog xool résultat yi nga xam ne moo nekk ci këyit yooyu seet ko ba xam xale bi lu mu gag lu mu runge lu mu yàq ca loolu lay sukkandiku ak te xale bi mokkal na wala mokkalu te it xale yëpp it foofu lañ leen di jaarale am na it ci ay gal loo xam ne moom lañ rëdd wax ne kenn waru cee yëg waxuñu kenn war na cee war na koo am fukk gat ak juróom lañ wax ne kenn waru cee yëg waaye tari bi ni muy demee booba ak tey ñun xam nañ ne bu ñu arrêté woon ci juróom-ñaari gat kenn waru cee yëg incha allah ñuy dikk fii di tari si ñoom ñëpp dañ ci gën kon alhamdulilah laj na bi def na liggéey boobu ak dongay soxna jaara yi. ñi leen téyel di fanweeri sëriñ daara ak ñaar bis naka tey saxal nañu ci kanamu yàlla ci kanamu taarix ci kanamu sëriñ bi wax ne xale yii fi tari sëriñ bi alhamdulilahi di fanweeri maam jaara ak ñaar ñii mokkal nañu alxuraan karim kon ci loolu la commission bi defaree ay diplôme yoo xam ne sëriñ bi danga leen ko jébbal naka noonu it ñi nga xam ne ñoo jeexaloon lu weesu lu lu ëpp ñetti at ci gannaaw jàngoon alxuraan ba mokkal ko doon jàng xam-xam ak arab ci daara ji am na ci juróom yoo xam ne jeexal nañu leen ji ñu war leen jox seen liggéey ñoom it daj na bi xool na seen liggéey ba defal leen ay diplôme kon loolu sëriñ bi mooy liggéeyu euh, commission bi ak mu nekk commission bi nag ci njiital sëriñ Muntaxa moom Mamoor mi ngi wàññi ko di ndokkeel sëriñ tàmbalee ci Cheikh Mouhamadou Moustapha li nga xam ne gàncax bii mooy kii defoon jiwu ba ci suuf te suñ borom def ko muy jiwu mucc ayib gàncax fekk ci boo xam ne gàncax bu am barke la boo xam ne moo génne lii nga xam ne mooy résultat kon yàlla yàlla dolli ko ay leer dolli ko ay ngërëm ca barsax Cheikh Mouhamadou Moustapha mii nga xam ne tey jii moo yow liggéey bi eh, moom it yàlla. guddal aw fanam lool te defal ko ak wér lool xam nañ yitte jim jox daara ji yitte ju kawe la yàlla su borom àggale ko fa mu ko yéene ak fa gën a kawe fa mu ko yéene lépp di barke lépp di leer te lépp ñu ànd ko moom wañu kuy laj na bi gërëm mboolem ñu nga xam ne ñooy sëriñ daara yi nga xam ne tey na leen fi diirub ñaari fan ñu fi xëy si 7 heures du di fi nekk ba 6 heures 7 heures ci ngoon wala sax timis wala géye ngir téyel xale yi ñoom ñëpp laaj na bi mi ngi leen di gërëm di leen sant ñaan yàlla barke téere bi topp ci ñoom laaj na bi mi ngi ndokkeel donga yi nga xam ne ren jii ñoo tari alxuraan eh, di ñaan suñu borom def leen te alxuraan yi seen dënn suñu borom def ko leer barke boo xam ne dina dellu ci ñoom dellu ci seeni waajur dellu ci askan wi xanaa li nga ne moom la laaj na bi di mujj di mujjee ci ay wax Serigne Mountakha fàttali ba ko léegi mooy mu ngi dénkaat waajur yi liggéey bu rëy bi nga xam ne kër yi di daara ci defee ko ci gone yi gone yi jàngal leen alxuraan bañ mokkal ko mokkal bu rafet ñu taxaw yar leen ci jikkoy lislaam jikkoy taaliba yar bu rafet kon ak fu mën a jëm ñi nga xam ne dem vacances di delsi ñu ngi sàkku ci waajur yi nañ leen topp bu baax toppatoo leen bu baax liñ xas ba am ci alxuraan ñu sàmmal leen ko jar na sax daara ya nekk ca gox ba bu ñu noppaloo ba noppi ñu yóbbu leen ca daara yooyu ngir ñu man di nafar di sàmm seen alxuraan ba ba ñuy delsi fekk duñ ko fëtt ndax dem gi jàngalekat yi wax nañu ne dem gi day buñ dikkee lu bari dañ koy fëtt ñoom ñu nekkaat ci ñoom di toppaat lool nag ah manis na koo fanq ci kaw waajur yi taxawu leen taxawu seen ëllëg ba nga xam ne fëtt boobu lu am ñi nga xam ñoo fi jeexalit nar a ñibbi waajur yéen jëm ca ñoom ak kilifa yéen jëm ca ñoom ñu sàmmal leen alxuraan ndax alxuraan kat moo ngën ji mooy ngën ji doon doon sàkk ngën ji xam-xam mooy alxuraan ci moom lañ tàmbalee def ci coono ba xëy am ko kon nañ leen ko sàmmal bu baax jàppale leen ci bu baax ba alxuraan moom fu ñu mën a jëm doomu ñu ko kon ñu ngi taxaw lu foofu di wàññi ko waat di ndokkeel sëriñ bi di ko sant di ko ñaanal yàlla sëriñ Isaax ñu ngi lay nuy bu baax di la ziyaar di ñaan yàlla seen jotaay bi yàgg lool ngeen yàgg ko jiite